waaw cérémonie bi lu ko wund mooy euh, dañoo jënd ay euh, unité de conditionnement yoo xamante ni day ñoŋal soble bi gën ko rafetal ñu mën ko teg ci ay sacs yu 25 kilos ko jaay te loolu ñoo ngi ci dimbalu lu romb loolu tamit waa DER tamit ñu ngi liggéey ak ñun euh, ci Baye au delà de ça aussi ren def nañ benn ligne de financement de plus de 500 ci filière horticole yi pour ñu mën a jënd soble bi mën ko jaayaat commerçant au delà de ça aussi daaw defoon nañ 1 milliard